بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما ma السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci turu sëñ Abdourahim mi nga xam ne mooy xalifa général kër sëñ Massamba Diop Sam gépp di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ko ñaanal taalibe yépp itam ñu ànd ak moom liggéeyal sëñ Massamba Diop Sam ñu ngi nuyu président de la république ci ndaw yi nga xam ne yabal na leen fi muy sous-préfet ak monsieur le maire nga Ndiouf ak mboolem chef de service yi ñu àndal yépp ci seen taxawaay bu ci seen jàpp di nuyoo tam euh, soxna Ndella Wade ci jëfam ju rafet ji nga xam ne jëf bi fi ci Darou Sam mm, te ñu koy ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér di sant mbay njaay mi nga xam ne moo defar rang-rang bi ba mu ñëw Darou Sam ba jafe-jafe yi si doon amoon yëpp wàññi ko waaye nag ñu ngi ñaan président de la république juróomi kilomètre ba juróom-benn yi nga xam ne moo tàmbali Touba ñëw fii Darou Sam ñu godorome ko ndax ñaan nañ ko ñaanate ko ñaanate ko noo koy doole ñaanaat ak itam sunu forage bi nga xam ni taalib bi ñoo dajaloo defar sa bu toll nii kon gouvernement bi. wax dëgg war nañ koy jàpp seen loxo ak war nañ koy jàpp bu baax a baax baax ndax kuy góorgóorlu war na koo dimbali te du ko fi ñëw xam ni waa Darou Sam jàmbaar lañ ak taalo bi yi nga xam ne ñoo bokk defar for satadoo bi la ca toog mooy dëkk bi day yokk kon war nañu noo dimbali ba courant bi mën a gën a yaatu ci mbedd yi ba kër fépp fu kër nekk ñu man ñu mën koo defal moo mën a am courant looloo liñ ci sàkku la la des mooy poste santé bi nga xam ne moo nekk Darou Sam ci la monsieur le maire taxawu ko def ci lu mat fanweeri million lu topp wax dëgg yàlla boobaag léegi indi nañ équipement bi waaye nag ay docteur ak ay gar dara amu fi kon loolu ñu ngi leen koy fàttali bëgg ngeen bu ngeen sous-préfet yow mi fi teewal gouvernement bi soo demee nga jottalal na ko wax dëgg yàlla góor jàmbaar lañ waaye bëgg nañu ko di dimbali bu baax a baax a baax ndax ci gouvernement bi la ñu bokk te bu lépp lu ñëw lu ne dañ koy taxaw bu baax a baax jàppale leen kon war ngeen noo jàppale bu geesu bu baax a ci lii nu bëgg di ko tawat lu mat fukki at ëpp na ko te amagul ci saafara loolee daal noo ngi leen koy fàttali ngeen fàttali kilifa yi nga xam ñoo nekk ci kaw ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu wa rahmatulahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen ziare leen balaax di leen balaax comme niñ ko baaxoo def rek bu liggéeyee ba liggéey bi tollu fii rek ñu lim day yi noo bokk liggéey teñ teew tey jii fi Daaru Sàmm mat dañ téeméeri dayre ak ñett 103 daayira teew na tey ci Darou Salam kon noo ngi ñaanal ñëpp dellu jàmm ak salaam te bu dee dañ dellu si te xéwal yi gën a bari wér gi gën a bari ñu tàmbale ci daayira yi nga xam ñooy daayira yi jógee Europe muy daayira Touba Espagne président Serigne Omar Niang daayira Italie président Serigne Fallou Lay daayira Argentine président Serigne Abdou Khadir Lay président Gabon Serigne Bassirou Gueye président Touba Brésil Ndiassé Mbengue président Touba Amérique El Hadji Talla Kane daayira Abidjan Serigne Modou Gueye Modou Sadikh daayira Touba France El Hadji Moussa sant Serigne Moussa Mou Diop bu Darou Diop président Serigne Cheikh Leye daayira Touba Darou Fane président Soxna Jeembay Jambal Gadiaga Moustapha Gadiaga Bët Forage Soxna Anta Niang Mbour président Abdou Abdourahim Diagne Ndindi Peteñ soxna Ndaama Ndiaye Touba Madiana Cheikh Lay Nexej Paleen Njaga Sarr Touba Añam Fouta Cheikhouna Lay Touba Njigal Ndiaye Serigne Modou Ndiaye Gëti Ñing Binta Guèye Ramatu Diop Cheikh Diop Nexej Jama Diop El Hadj Lay Kaolack Moustapha Touba Kankan Mbacke Tall Fanay Lëy Mati Ndiaye Xaasin Sall Toola Seck Touba Ziguinchor Moustapha Lëy Touba Léen Laay Lëy Touba France Sëriñ Moussa Lëy Touba Njeng Diop Baara Lëy euh, Tàggaar Mbuubeen Ñaasa Diop ak Faat Mbuub Ndaat Fall Sëriñ El Hadj Man Fall Kërin Diop El Hadj Moussa Samb Ngembe Dieng Sëriñ Mor Dieng cekkeente Cheikh Badar Diop mbagi xumma sëriñ mbay xumma Marina Diop Modou Niang ak Mati Lay kan Cheikh Diagne dayre jaw jaw Xaadim Diop ak bayti kan ak Touba Tawa Fall ba mu dara teew nii léegi waaw Maama Su ndimb Fall bayti Diop ak Ngaan Diop Parcelles Assainies Dakar Soda Dieng ak Matou Guèye Ndière Dieng Mbacke Dieng Ñeer Cissé Modou Badiane Mbengeen Ndey Ndiaye ak Xurin Lum Touba Thiey Thiey Awa Sylla Lëñ Sinu Peex Ndey Sow Njaañ Modou Diagne Bousra Lëy Khady Sall Baxdaat Lëy Serigne Bara Lëy Kébé Maire El Hadj Moussa Diop ak Mariama Thiam gàdd mbaraama ndey mbeng njóobeen taay sëñ Mor Diop bëgg sëñ Mor Samba Diop Bousra Maar Amet Maar Mubaarak bu Géejawaay Dakar Baye Laay ak Góor a Géey njukki Pekes Yebo Fall Abdou Fall ak Soor Fay waa kër El Hadj Ba Diop ca Kaolack seen président soxna Astou Diop ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan saa delloo ñëpp jàng barkat sëriñ Massamba Diop jërë ngeen jëf. jërëjëf. ndongo yi war nañoo yokk sunu laxasaay war nañoo yokk sunu posture war nañoo yokk sunu jëf ndax dañuy roy ci sët yi toog taxawal bis bu mes mel nii def ci alal ju mel nii tabax bâtiment yii indi forage bii nii def fi poste de santé bi kon sëti sëñ Massamba Diop bu ñu liggéeyee du ñun taalibe yi war nañoo mën a liggéey lu ko wasalaam. jim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatoo bokki Darou Sam maa ngi leen di nuyu nuyoo bi nag nu di jiital chef du village bi Serigne Cheikh Diop ñoo ngi nuyu Serigne Abdourahim Diop xalifa sëñ Massamba Diop Samb di fam nuyoo ah, délégation bi ma àndal di ko ko jox mu jébbal ko. Euh, mbooloo mi fi teew ñëpp bu loolu jàllee euh, sati sëñ Massamba Diop maa ngi leen di nuyu nuyoo bi nag nu di jiital sëriñ Sooy Diop di ko jox nuyoo commune bi ak conseil ma àndal yëpp ñu di ko jox sët yi ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax comme ni ko njëkk a waxee ah euh, sët yi Dërou Sam dekkal nañu ko bu wér-wér-wér dolli nañu ko Dërou Sam mos taxaw waaye dekkal nañu ko. fii nag am royukaay la ndax sëñ Masamba Diop kenn la ci yoon murit te dootu doon ñaar ndax sëñ sàmba Diop nun day noo ngi sant bu baax ndax yaakaar nañu ni lépp lu nu am rek ci ah, sëñ Masamba Diop lu nu am ak Cheikh Issa Dieng dafa naa lu nu am rek loolu ñoo nu ko may kon nag yéen royukaay ngeen ndax man de ni ma mën a xam mooy nekk naa fi ba jóge ba ba fii nu toll mosuma àtte defe naay taalibe euh, sëñ ma Massamba Diop fii kon nag loolu rek royukaay la yéen nag dafa am loo xam ne si moom la leen yàlla defal muy bennoo kon seen bennoo gii nga xam ne si moom la yàlla bëgg yonent bi bëgg ko nun ñëpp ñu ngi ciy sant di leen gërëm di ñaan yàlla dooli leen ci ndaxte li ngeen am wax dëgg yàlla kenn amu ko loolu nag bu ngeen ko amee yaakaar naa ni sante ko sëñ ma Massamba Diop rek ko waat ndax toppante bi nga xam ni moo am ci yoonu sëñ Massamba Diop amul fenn ci senegal loolu nag doy naa sant yàlla sëñ euh, kon ñu ngi sant euh, Ndéla Diop di ko jox sunu nuyoo Ndéla Wade ñu ngi koy sant di ko jox sunu nuyoo ndax fekk nañ fi yóbbante ñaari xalifa yi fi teew yépp nag kenn ku ci ne damaa jox ak cantam goo xam ne daf koo sant loolu maa ngi koy mbiral fii muy sëñ Abdou Wahab Diop ak sëñ Abdourahim Diop mii tey bi nu dikkee tam kanam fi loo xam ne si sëñ Cheikh Diop baax ma ko sedd na xol bu baax kon beela yàlla na ko yàlla suñu borom jàppale sëñ seex nag dégg nañu lu ñu wax ci dëkk bi loolu yaakaar naa yi deeñu ci euh, président de la république xelam nekk na ci Darou Sam ndax yónnee na fi yaari ndaw yoo xam ne si tali bii moo tax beneen bi ci des forage bii moo tax kon yaakaar naa ni bi ngeen góorgóorloo ba defar seetadoo bii man de maa ngi yaakaar yoo euh, maa ngi yaakaar ne bala noo delluwaat déwén noo ngi am yaakaar nag la noo am waaye yoon bii nga xam ne moo jógee euh, Toubé Fall ba ba ngay dem ngaay ma ngi ci téeri dese noo ngi ci am yaakaar li ci des nag dañu koy bàyyeek sous préfet mi nga xam ne si moom la ñu àndal mu teewal fi président de bi république kon nu noo moom itam ñu koy sant di ko gërëm. dëgg. caméra tax bisimilah rahmaan rahim alhamdulilah rabbil alamin maa ngi nuyu mbokk jullit di nuyu mbokk taalibe yi tey Daaru Sam bésu cant ak bésu ziar bu njabootu Serigne Touba yi xel yi dinañu dem ci Serigne Massamba Diop Sarr Diop nekk jàmbaaru Serigne Touba liggéey Serigne Touba mu am fay Serigne Touba te nag maa ngi teewal préfet département muy Makan Mbeng di indi cantom ziyaaram jaaleew parce que bu njabootu Serigne Touba am tiis ak nakar boo boo ñëwee ci njabootu Serigne Massamba Diop sàmm war nga mën leen jaale parce que ku xam Serigne Touba xam njàmbaaru liggéey ak nu mu fonkee Serigne Touba nu mu ko taxawee nu mu ko liggéeyee war nga ko mën a indi njabootam. njaal moo tax préfet département bi Makan Mbeng ma indi njaaloom mais nag santoom ak ngërëm ci bés bu mel ni tey di bés bu rëy ci arrondissement bi di bés boo xam ne ñun ren mooy sama ñetteelu at may ñu daaru saam mais at bu ne day gën a yokk hmm. moo tax ren ñu def CLD pour xayma waxtaan xool ak service yi ban doxalin lañ mën a def pour que bi lépp mën a jaar ci yoon je pense que lu ñu fi gis daal mën na mébét encore bu ñu fi jógee dinañ bind suñu kilifa yi pour que bu ñu jógee CLD ñu dem ci CDD bu Tivaouane je pense que loolu tamit dinañ jëbbal suñu kayit suñu kilifa yi di leen indi nuyu sant ziar muy gouverneur gouverneur de la région de Thiès muy Amadou si ñëpp xam na ni mu fonkee njaboot bi fonk kilifa diine yi fonk euh, fu bépp réew boo xam ne am na fa ay kilifa diine mu ngi fay def ay liggéey bu am solo di leen indi nag ziara sant mooy suñu ministre mooy ministre de l'intérieur Ali Ngun Jaay mu yebal ma mu ne ma boo fa demee jox leen sama sant ziar surtout sama njaal moo tax premier ministre Boun Abdallah Dionne ak gouvernement am yëpp teg suñu loxo seen sant seen ziar seen njaal rawat na nag borom réew mi mooy koo xam ne moom la yàlla teg ci bopp réew mi mooy liggéey liggéey bu am solo ci réew mi surtout ci gox yoo xam ne foofu la kilifa diine yi nekk ñëpp gis nañu teg nañ seen bët ci liggéey boo xam ne mu ngi koy def Tivaouane di ko def Touba di ko def ma Kaolack di ko def Yoff di ko def Médina Gounass di ko def feneen ak feneen je pense que Daaru Sam tamit war na mun a am cëram ci liggéey boo xam ne moom la koy def buñ ci pare nag président de la république nag ñu ngi indi santom ngërëmam surtout ziarom président de la république mu ngi ziar di sant suñu xalif bi muy xalif Abdourahim Abdourahim Diop di teg santom ziarom pour mu jottali ko mooy xalif général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mu wasaare ko ci bépp taalibe fu mu mënta doon ci biir réew mi ak ci biir àdduna président mu leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ñëpp xam nañu balaa ñu mën a jaamu yàlla balaa ñu mën a liggéey balaa ñu mën a def développement jàmm am ci réew mi moo tax fu nit ñi daje mu nekk ay nit ñu baax mu nekk ay kilifa diine fu ñu dajee rek. président de la république nee leen boo leen fa demee nee leen nañu ñaanal réew mi réew mi na fi réew mi am jàmm réew mi am dal nag réew mi tamit nañu waxtaane nañu diisoo moo tax président de la république nag yebal mi pour ngeen ñaan réew mi am jàmm réew mi am dal boo gisee nit ñi di jaamu yàlla jàmm moo fa am mm. fu jàmm amul nag kenn du mën a jaamu yàlla kenn du mën a liggéey te développement bu am moo tax président de la république mu ne ngeen ñaana réew mi na réew mi am jàmm réew mi am dal wax nañ fi sànq ay quelques doléances c'est normal dëkk buy màgg comme Daaru Sam ñëpp xam nañ ko Daaru Sam mu ngi màgg il faut que mu am ay tali il faut que mu am ay làmp il faut que mu am ay ndox fu may tàmbali mooy ndox bi ndox bi je pense que ñëwoon nañu fii ci ci CLD bi waxtaan nañu mais ñu bind directeur OFOR je pense que comité d'organisation bi wax nañ leen information bi que bu pompe amoon ci stock bi Daaru Sam du jooyaat problème ndox pompe bi moo jeexoon xam naa dañ ko commandé bu pompe bi amaatee je pense que dinañ ñëw pour changer pompe Daaru Sam lu dem ci tali bi maire wax na leen ko tali bi mu ngi ci programme PUDC bu yàlla mayee gudd fan ak wér-gu-yaram incha allahu tali bi PUDC dina ko liggéey maintenant lu ci dem ci électrification ñëpp xam nañ ko euh, PUDC mu ngi mu ngi jublu si ay électrification rurale loolu tamit dinañ ci bind suñu kilifa bind ministre bi wan ko Daaru Sàmm euh, dëkk bu mag la dëkk bu réy la dëkk baa ngi yaatu dëkk baa ngi mag dafa soxla lu ñu wax extension boobu je pense que dinañ bind ministre bi bind directeur bi pour que au moins ñu mën jël la question de l' extension électrique au niveau de Darou Sam donc loolu laa am loo xam ne bëgg naa ko sandi ci samay kaddu ci samay turu kilifa yi ñoo ma fi yebal pour ma toggal leen pour que ma représenter gouvernement bi ak le de la république si xeex bu am solo bi mooy di ziara buy am at bu ne daaru sàmm asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi fi teew yépp ci cant gi ñuy defal sëriñ Massamba Diop ñi ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci nuyóob lislaam ba gën a rafet di leen wax yéen ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa di tàmbalee nuyoo bi sëñ Mat Jóob Masamba mi di doomi Cheikh Modou Fadal di di teg nuyoo bi nag ci loxob sëñ Ibrahim Jóob mi jiite njabootu sëñ Masamba Jóob mu matale ko ci mbooleem doomam yi fi ne yépp bàyyiwuñ kenn settewuñ kenn di leen siyaare bu baax ci bis bii ndax seen maam dafa liggéeyal sëñ Tuubaa bu baax a baax a baax liggéey bu rafet liggéey boo xam ne ci njëlbeen ga la ndax li ko may bis bii mu doon bisub siyaar boo xam ne ñi bokk ci sëñ Tuubaa ñépp yëg nañ ko tam tam rëy fi ñoom mooy dafa njëkk a nangul sëñ bi nangul sëñ bi googee tam tam defoon ko ca pataar loolu moo ko may lii mu am pataar moo jiitu Mbàkke Kajoor sokkee topp Mbàkke Boor sokkee topp Daaru Salaam sokkee topp Tuubaa soog a ñëw kon loolu yàgg na ak sëñ bi te loolu lépp fa ko sëñ bi la siyaa mooy bi sëñ bi de wër réew mi ba ñëw fii ci sëñ Mor Sarr fekk muy jàngale mu fekk fa sëñ Masamba Diop sëñ Masamba Diop di tëralu risaala sëñ bi sëñ bi ne ko ñëwal ma tëral la ba mu ko tëralalee ca la ko mbir dugg mu ne fu sëñ bi nekk danaa ko fekki njàngale moomee daal ca ko sëñ bi lësiyaa ba fu mu jëm mu daal laxas fekk sëñ sëñ bi ne ko man yërëguma sama daara bopp ci daara yi Mamour Anta Sali laa ne mu ne ko koo mën a ne rek man ci yow laay ne loo ma digal ma def ko di jàng ci yow waaye du ma àgg ci keneen <laughs> foofu la diggante ak sëñ bi tàmbalee hmm. loolu nag moo ko may bi sëñ bi demee ba ne Touba ba mu yàgg mu ne day aji màkka yàlla xër ko ci looloo li li mu gënoon a mu ne sëñ Massamba Diop yow laay àndal ne ko demal ci réew ma yi eh, lu war a doon bu yóbbal rek yow laa ko sas moom nga xam ne eh, sànq rek boobu mag ñi bu ñuy aji noon la wut ndax dañuy dox réew yi rek waaye boobu dugg dara dugg bàtt sax xewawut loolu lañ yéene woon a def ba mu yàgg ba mu demee ba wuti loola ba ñëw ci diggante boobu la sëñ bi gis Touba daal ne ko la ma doon wut lépp sama borom xamal na ma ne yéen jëma amoon sun borom nangu na ko te defal na ma ko fii <laughs> loolu moo tey ñu ànd waaye moom la naroon àndal dem mag bokk na ci ay ci digganteem ak sëñ bi loo xam ne yéen ñëpp mën ngeen ko yóbbu loo am na boo xam ne kenn ci taalib yi dafa bindu kaamil di ko jaay sëñ bi boobu mag ñi noonu lañ daal di fanweeri dërëm sëñ bi daal di bindu leetar sëñ ma Samba Diop ne ko laajte ko boo demee ba àgg ba Darou Sam nga jox nga jox ko mu laajte ko ba ñëw fii sëñ ma Samba Diop jox ko ñetti téeméer daal di fab mbindum sëñ bi ak kaay daal di fab mbindum sëñ bi lii laay barkeeroo kaay bi demal yitaalaat ma ko addiyee mbind mii doy na ma sëkk <laughs> waa ji fabaat kaay bi ba ñëw jël ñetti téeméer te moom fanweer la doon ba mu demee ku ñu xam la sax ci nit ñi ay ay sëtam ak yëpp ngi fi mujj mujj bokk ci yoon wi lool te diggu ci <laughs> bi mu dellu si waaye rek moom sëñ boobee ci daari kay mi la mujj bokk doon murit bu daanu ko te sax <laughs> ba mu dellu si sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ne ko xam nga lu ma jublu woon ci looloo mu ne ko ana ana kaamil mu ne ko ah moom de jox na ma damaa delloowaat kaamil ba jox ma ñetti téeméer barkeeloo mbind mu nga ma nga ko joxoon def ko def ko ci daal yëkkati maxtoom def ko ci sëñ bi ne ko damaa bëggoon nga xam ne masaalihu dunya wa manaafihuha liya <laughs> damaa bëggoon nga xam ne luy njariñul àdduna ak luy yiwi àdduna manaafihu dunya wal aaxirati la ko wax masaalihu masaalihu <laughs> ñe mboolem luy njëriñ njëriñul adduna ak luy eh, lu lépp loo xam ne nit a nga koy bëgg ci adduna hmm. loolu ñeel na ma man sëñ bi loolu laa la bëggoon a woon waajo ca la doxee daal di sukk ne ko kon jëbal naa la sama bopp adduna ak àllaaxira kon nag loolu li ma leen koy joxe bi yóbbal mooy ngeen xam ne eh, doyloo ngeen lu doy yàlla yi dimbali na leen ba li li li li li jafe seen maam fàggul na bu baax mooy ba tey na la war ci ci doxinu sëñ Tuuba ak positif dara sottiwut ci kër gi ba tey waaw te li sëñ Tuuba di jaay lépp lépp lépp lépp sëñ Blaat nee na woon li sëñ Tuuba di jaay lépp lépp positif ay njëg gi yéen nag seen sëriñ si positif bi sottiwut taalib yi bi sottiwut kon nag war ngeen sant yàlla. te xam ne it loolu dañ leen ko fàggul waaye kenn mënu ko fàggul sa bopp wa kullu haamin wa antum bi xayrin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala alhamdulillahi wahda wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wahda assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalib yi ci turu sëriñ Abdou Rahim xaalifatu sëriñ Samb Diop moo jox ndigal mu wax ci turam doonte bëgg naa ñëw te mënu ko mu wax loolu nu nit doonte lool nañ ci wax ji fokk ñu jéem ko insha sëriñ bi mu ne ñu ngi nuyu taalibe yi ak bokk yëpp sëñ bi nee na xalam seet dina buy buy buy yéen ndax kenn ku nekk bàyyi itteem itti woo ñu ngi Daaru ngir siyaar si am sàmm jóg loolu lu kawe ci moom la ni ma ko bëggee su ko ni ma ne woon mu ñëw toog fii wax ak yéen waaye yàlla doo ko mu lott man ñi ma koy wax looy yàlla dogal na loolu attanaa ci waaye faw ma jëm ci jëfe ndigal sëñ bi nee mi ngi nuyu maire bi Nguuru Diouf ci turu kilifa réew mi hmm, mi ngi yóbbante préfet ab nuyoo ak cant ci liñ weesu liñ ci doxal tey ñaan ñu dolli ndax dëkk bi de am na lu mu aajowoo yu bare bari jamono yi koy dem ñu di ko wax di bind waaye ba tey amaguñ ci jawab ci leen ko soxlaa waxaan nañ ba tabax fi ak poste santé daaw la àggan ba ren yàlla dogul amaguñ benn fajkat benn garab travaux bi wax nañ ko ay at xam naa gisaan nañ ko du mat fukki at ci nguur gi fi jóge ba tey taalibe yi ak waa dëkk bi ñoo dajale seen xaalis ba tabax orax bii jënd seen pompe waaye amaguñ ba tey niñ ko bëggee ndax pompe bi ci yan amaguñ ko yoon wi toll ci ay juróomi kilomètre sonn ci bataay benn taalibe moo ko sarse woo defal ko raaraan bi dam ñëw fii ba léegi wàññi ko na coono yi waaye ba tax ni ko bëggoon amaguñ ko te loolu jàpp nañ ni nguur gi buñ ñu boolee ci dëkk yi war a am dañu ko am xaw ma ne ñoom bu ñu jubóoliwut te dëkk bi de moo ne mënta jeeboole ndax su fekkee si ne aw nit rek la de di tàmbali fii ba mu ngi àgg ba gàncax ragal naa ne. li ci ëpp ci mbooloo yi ci la yaakaar kon daa saam war ngeen ko boole ci dëkk yi ngeen ittiwoo dafay mel ni nag seen ittiwoo ci dëkk bi day def tuuti ndax loo xam ne yaa ngi koy jàmbat lu mat fukki at te defuñu ci dara loolu ittiwoo gi day am lu ci des tuuti monsieur le préfet la yóbbante yóbbante boobu ne boobu jottali ko jottali teel na ko ndax wax na waxaat nañ ko xanaa dañ koy waxaat waaye wax ay wax yi wax yi wax waaye nag ba léegi suñ liñ jooytu saafara saafaroogut te dana yaakaar ne ñu ci dimbalee dana mën saafara dana ngeen jëf surtout ñu jëm ci bokki taalibe yi bokki taalibe yi sëriñ bi nee na ñu ngi leen di sant di leen digal yi sëñ bi dégale di leen teral sëñ bi teral ndigalu sëriñ bi ak teg sëñ bi génnul teral sëriñ Tuubaa génnul teral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy digle lu baax di di tere safaan ba da ngeen di fexe ba lépp luñ digle ngeen lu ngeen tëman ngeen def ko te lu ñuy tere ngeen bañ caa jaar dara ngeen ko defee rek ngeen bëgg def am sëñ bi ñu ngi taxaw taxawal ci at yi rek nangoo jaamu yàlla te nangoo liggéey jaamu yàlla kat mooy tax yaakaar àjjana ku nangoo liggéey da tax a teel kon nag da ngeen jéem a jaamu yàlla te nangoo liggéey ku nangutu liggéey de da nga la suñu wax wala ñu jéppi la kon nag naan góorgóor nangoo liggéey te jaamu mooy mooy li ñu tere noo ngi gërëm suñu bokki daayira bi nga xam ne mooy daayira bu barke ndax dëkk bi daanaka lu fi taxaw eh, ñoo ko taxawal mi ngi tàmbali ci barab bii ñuy waxtaane ñoo ko fi def ñoo fi def kër gi li ñu fi def sax neexutu lim lépp waaye lu fi taxaw rek man ne ñoo ko taxawal kon li fi taxaw lépp na mañ ne doo nga yee ko defal waaye kenn kenn dimbaliwut ci bu dul xaar suñu borom tabaraka wa taala waaye kon noo ngi gërëm taali bi yëpp di gërëm bokki daayira bi daayira eh, biir daayira bi noo ngi gërëm njabootu soxna Aja Fat Diop bu sëriñ Bassirou wax dëgg njabootam de taxaw gi ñu ci dara saam eh, rafet na loolu nag mi ngi sosoo ci seen ndey ndax seen ndey ku bëgg dëkk bi la ku dëkk ci dëkk bi rek xam nga lu Fat Diop def ci yow boo ko waxee boobu ku ne ku dëkkan ci Dakar rek xam nga lu suñu Mat Diop lu soxna def ci yow waaye nag foofu mu bàyyi woon rek fa la ak njabootam sose ba léegi si aji ndeel ku ne gis na def ci dëkk bi euh, li muy def ci dëkk bi sax wax donte sax bëggul ku wax ay jëfam waaye nag fekk na euh, ku def lu baax wala su wax ndax suñu borom tabaaraka wa taala moo waxoon ngeen di wér di ko wa maa biñ xam ne abik fa kon euh, day ni euh, ku la defal lu baax cant yi daa jàll te tax loolu mooy li am te dina wér itam ndax suñu borom ku lebal benn fay lu fukk da jëf bi si tukum xayran wa kabitukum salaam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fépp